léegi ñu seeti Modou Lo mi Modou mi Modou mi Modou mais mon ami Modou mais mon ami Modou mais supporteru bi li mu leen yàq yéen waa parcelle ak li ñu li ñu wax mais yéen ko yebal mais naay san bëggee yaay fay bëggee non affaire yi du affaire ay jaay taar ñun parcelle la ñu dëkk kenn gën ñu doon naanatee mais parcelle lan moo ko sanc booy dëkk HLM Grand Dakar mais Médina Gueule Tapée mais Patte d'Oie mais ñun suñu ay paa yi nekkoon ci jamonoy Senghor doon job seen job moo nii ñoo mujj takk gàllee dem dëkki parcelle parce que temps yooyu HLM neexatul Grand Dakar neexatul ñaari tari neexatul mais ville neexatul paa yi takk bagage dem tëgg jëli Parcelles Assainies mais kon ñun ñëpp ay booy taw nañu fii du jéem a jaay nante non gain bi ni mu waxee ak ñoom ni ñuy waxee mooy mel ne que ñun ay ngaaka nañu quoi ñoo indi ay xeex affaire yooyu wala ñun civilisé wuñu non non non booy dañu xoolal parfum yu neex yi gars yi di tuuroo ñun ñoo koy jël ci ñëw di ko jënd ñun yaa ngi dégg ñun ñoo koy jënd c'est parce que banlieue bi ay marchand ambulant fi nekk war ay booy yoo xam ne ay cooki yooyu ñoo ne non non non nañu bàyyi yooyu quand même ñun ay booy temps nañu nante nañu ñun ñu neex nañu ñooy stade ñun ñu neex nañu ñooy da ngay gis gain bu ñëw sanc ba dóor ay adidas am yu ay ay dàll bondam yu mool teg ay chemise yu seer oyofal ko romb dóor la parfum et eh, su ma ngaa ko mais grand yaa coofe fekk gain parcelle la dëkk. waaye bu ñu kenn rey affaire yi nekkul ci ay yére xam affaire bi ci lan la ci xel la ak ci technique nañu wax ci combat bi moo gën ay waxu dañuy ñëw solo dañuy def nii yooyu taxawul. ñun Parcelles Assainies booy jaay taar xale yu jigéen nekk Parcelles Assainies kenn gënu leen taaru non li ma wax nii xam ngeen ko. booy xool mariage yi am Sénégal yëpp bu dee cinquante mariage la trente cinq mariage yëpp booy bi parcelle la ñuy dëkk ci banlieue bi kon bu ñu kenn rey ñun suñu xale yi dañu tàng jër ku wedd laa jël artistes yi bu ñu tëgg soire bu xale yi génn du ñu am dara parce que xale yi dañu tàng yor morning di daan seen doole waaye kon bu ñu kenn yëpp gis nga affaire bi lan du ay tey la ñëw stade ak mujjee ñëw ak sañse nekk foofu technique la ak xel ñun bu ñu neexee fanaan stade affaire yi na ànd ak dal et puis may waxee nii sax du question dama mer non nante mooy waxee nii nante da ngay ñëw wax mais taxaw eh, bon si c'est c'est c'est mel na koo xam ne non ñun gis ñu yooyu ñun ay booy town nañu Parcelles Assainies ngaa ko dëkku fa yéen a may kon yen waa Fass li ngeen di yaawi di jaay taar loolu amul xamalal la na seen mbër ñëw bëree techniquement booy bi jaar ko daan ko et puis ñu on appelle la non violence si ñu la fekk baax ñun parce que dañu mais yow loolu mais lool du dara walla mais ku la wër na ngay daan indee violence mais kii wax ay non violence di jéem a kaas noonu mooy xalal ñu daan mbërëm ñu kii ni fa ay kon sa dis la vérité yaa ngi dégg kon dama bëgg ñu bàyyi banlieue bi ñuy jéem a kaañoo quoi de ay dañuy kii kër yooyu du ay wax yu taxaw bon Modou wax nañ moom ñu lay supporter lañ mais dañu am droit ci Modou Lo wax nañ moom nee nañ ko bul jaay combat bi taxawal xaar ko mu ñëw techniquement mu taxaw nga taxaw moom bi muy bëri yaa ngi yaa ngi dem stade de sen seen carrière am na différence tuuti kii booy bu ndaw la yaa ngi dégg. donc ñun du ñu ay mbër yooyu supporter yoo xam ne yu taxaw ni ah, ah, ah non dañuy ñëw taxaw ne Modou nii ak nii xool ñu ci te Modou noonu lay def jeex na eh ñun dóor daan ñibbi nañu xam na wax ji jeex bu fekkee na dañu bëgg après combat diggante supporter ak supporter non loolu duñ ko tëggee ci ay temps bii dañuy génn dem ba jam ñaajoo ndax dakaar ñu ñoo ko moom duñ ko yàq ok all loolu la ñu wax mais waxuñu leen Modou loolu li ñu ko sas xam na ko doful. ok kon gars yi dimanche 19h30 la wax ñun ñun 19h15 nañu wax ñun 19h15 nañu wax ragal naa ne yéen waa Fass dootu leen duggati parcelle loolu mooy loolu walla ñun bëre daan ñibbi la nga xam Modou Lo waaw Ababacar Ababacar Mbaye Modou Lo Mbaye Ababacar ñun loolu ñu wax affaire yi ci maanaam la Parcelles Assainies is bakkam ay nandite ñoo fa nekk booy intellectuel ay supporter ay daan français yooyu dafa am solo man may wax speak English I never forget he's, he's been as guys you faggots loolu dafa nekk affaire man la copain Modou Lo intime maay jike jine jine daan ñibbi maa lañ ko wax non dañuy daan amul lu ñuy tere daan kii ñu mën a téye yow Gris Bordeaux fu ñu mën a téye dañuy daan te nag xolal arbitre maa ngi leen di wax lu leer nag gis nga da ngeen di dof dof loo ëpp gel arbitre yi seen gel naa la gel yëpp façon ñu sa gel wax ne ma bu